mukarraman bi qirat taahaati wa sadadi mbokk yi jërë ngeen jëf ci déglu bi ngeen ñuy déglu ak seetaan bi ngeen ñuy seetaan ci sunu actu point com ñu ànd ak yéen ci guddi naafile yi nga xam ne dañ leen koy jukkile ci téere sëriñ son bu mbàkk bi ni wax xoratul xay ni tey ñu dikk ci guddik fukkeel bi ci guddik fukkeel bi mu war a doon ñeenti rakka rakka bu nekk ñu jàng ci fatiha ayatul kursi yi benn yoon jàng ci ina ansalnaahu fukki yoon ak ñaar ñu baamtuwaatal leen ko guddik fukkeel bi ñu jàng ñu ngi ciy julli ñeenti rakka rakka bu nekk neen ci jàng faatiya ak ayatul kursi yi benn yoon jàng ci ina ansalnaahu fukki yoon ak ñaar ñu ngi leen sant di leen gërëm ñu jox leen daje ci yeneen i guddi naaj yi. yaa ayyuha alladina amanu kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquuna ayyaaman maadudaat yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bila adadi laa zilta dayfan kariman zaa'iran abadan mukarraman bi qiraat taahaati wa sadadi